fan yi am na ay subuhaat yoo xam te ne xëy na dugg na ci njàngale mi subuhaat mooy ay lënt-lënt ma bëgg cee ñëw leeral ci li nga xam te ni moom lañ ci yàlla dimbalee ginnaaw bi ñu ko gëstoo mu mel ni yaakaar naa suñu waxtaan ku dégg xam ni minal bidaaya ila nihaaya a ba z amu ci fenn fenn fenn fenn fuñ tuutile Seydina Ali bañ nañ ko ba léegi-léegi sax dañuy wax wax Omar wax Ousmane léeg-léeg bu ñu agsee ci moom ne Seydina Ali duñ yem ci loolu sax waaye da dégg ñu naan radiyallahu anhu wa karrama wajhahu loolu sax dañ ko ci dolli te duñ ko waxal Aboubacar duñ ko waxal Omar duñ ko waxal Seydina Ousmane duñ ko waxal Seydina Aboubacar wala Seydina Omar wala Seydina Ousmane moom rek la beral loolu loolu nag muy firndeel ni kon cofeel gi ne ci suñu digganteeg moom ànd ak cofeel googu yépp nag bëgg Seydina Ali ak sopp ko comme niñ ko yonent bi alayhi salaam digale du tax mukkuñu ñu ni moo gën Abu Bakar wala moo gën Omar wala moo gën Ousmane ndax ahlu sunna moom liñ liñ dëppoo mooy ba yonent bi alayhi salaam waxee ni iqtadu billadayni min baadi abi bakrin wa Omar roy leen ci ñaar ñi nekk ñëw sama ginnaaw muy Abu Bakar ak Omar lañ ci jublu mooy tan bii rek yee leen ni Aboubacar Omar kat ñoo gën ci xeet wi sama ginnaaw waaye ñamel ni ñoom it ñoo gën ci xeet wi seen ginnaaw moo tax ahlu sunnati wal jamaa ñëpp dëppoo ni Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali moo tax suñu sëriñ bu baax bi Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu wa nafanaa barakaati fay ridwaanihi saa yu def tawassul day jiital Aboubacar tëj ci Omar teg ci Ousmane Ali ak mbooleem suñ mag ñi fi nekkoon yëpp ndax loolu na day sukk day day day wane ni dañoo tuutal Seydina Ali déedéet abadan tuuti luñ ko mukk comme ni nga xam ne ñun tamit tuuti luñ ko mukk abadan mu mel ni ahadis am na ay ahadis wala ay asaar yu ñëw yoo xam te nii yu ci ëpp dañ caa yokk lu ca bokkut mbaa ñu tawil ko firee ko lu mu saxewut bokk na ci hadithu saxalayni bi nga xam mbokk mi junjoon nako al imam muslim moko solo ci sahiham mu jóge zaid ibn arqam mun yende bi alayhi salatu wasalaam neena wa ana taarikun fiikum saxalayni awwaluhuma kitaabullahi fihi alhuda wannuur fa xuzuu bi kitaabillahi wastamsiku bihi teg wa ahlu bayti uzakkirukum allaha fi ahli bayti uzakkirukum allaha fi ahli bayti uzakkirukum allaha fi ahli bayti muy bàyyi naa sama ginnaaw ñaari mbir yoo xam te ni lu diis la ñaari mbir yoo xam te ni dañoo mel ni ay mbindeef bi ci jiitu mooy téere bi yàlla bi téere bi yàlla bi day am na njub aku leer na ngeen ko téye te ngeen jàpp ko daal ni ak sama njaboot gi sama waa kër muy ñi nga xam te ñooy ahlul bayti daal ni maa ngi leen di tudd maa ngi leen di fàttali yàlla ci sama ahlul bayti wax ñetti yoon maa ngi leen di fàttalil yàlla ci sama ahlul bayti maa ngi leen di fàttalil yàlla ci sama ahlul bayti xadis bi amul lenn luñ ci wax ndax xadis bu wér la al imaamu muslim moo ko soloo al imaamu muslim moo ko soloo lañ cay déggee it weesu wut ni yonente bi alayhi salaam dénk ñu téere bi yàlla bi muy alxuraan karim dénk ñu ak njabootam muy ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom ci deret te gëmoon ko ñi bokk ak moom ci deret te gëmoon ko mu dénk ñu ko moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir ñu fonk leen topp leen te e, jox leen cër bi nga xam te ni moom leen lislaam jox moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jox sàmm seeni àq tamit bañ leen a sàggane benn yoon cërug dawil xurba tamit saa yu ñëwee ñu jox leen ko te saa yu mooy saa yu ger amee bañ gañee ci alal ja lañuy jox dawil xurba ñu matal ko mat sëkk sëkk sëkk jox leen ko bañ caa ñi dara kon xadis bi ni ma ko waxee amul sikk sàkk am na yeneen riwaayaat yoo xam te nii ñëw na ci ibnu abi asim ci sunna waaye riwaayat yooya yi ci ëpp wérut ndax sufayr ibnu zayd mañ ca te abu xaatim ak annisaayi ak abu zura yépp ak ibnu shayba ak ibnu madini ak abu zura arrazi ñu ëpp ci ñoom ñëpp nee nañ kooku moom xadis bu mu nekk rek wérut waaye bii ma la njëkk wax nag moom xadis bu wér la ndax mi ngi ci saxiixu al imaami muslim te mooy ne al imaam muslim ci ahlu sunnati wal jamaa la bokk du ab chiyan yi waaye xadis bii moo ko rotal saxaaba yi ko solo tamit ay saxaabi yu màgg lañ wax naa ko sànq Zayd ibnu Arqam bokk na ci te jaayante woon naag Abu Bakrin radiyallahu taala anhu kon ku ci bëgg a jàpp ci xadis bi ba tax nga ni xilaafa gi ginnaaw yonente bi alayhi salaam Seydina Ali yi ma ko waroon a moom kon dese ngaa dégg xadis bi ndax boo indee xadis bi mën nañ laa indil beneen xadis boo xam te ni yonente bi salaam moo ko wax naa ci ñëw ci kanam incha allah boo xam te ni bokk na ci li borom xam-xam yi wuté ndax khilafatu abi bakr ndax khilafa am texte la wala sura la texte la wala diso la amna ñu bari ci ñoo dañu gis ni texte la ndax yonente bi alei salaam texte bo xamanteni wax na ko comme ni nga xamanteni bimu febaré lépp waxon nañ na len abou bakr di jité na len abou bakr di jité te boba de moo ne sayyidna umar a ngi fa woon Seydina Ali mi ngi fa woon Seydina Ousmane mi ngi fa woon Talxat mi fa woon Zubayr mi ngi fa woon saxaabi yu mag yëpp ñu ngi fa woon waaye dafa wax na len abou bakr di jité am na bi sa Aïcha mi doomi Aboubacar da ko wax ni ko Aboubacar day dafa feebal day jooy wala yu mel noonu buy jiite waaye yonent waaye sam insisté nii na Aboubacar jiite rek kon xilaafatu Aboubacar moom ku wax ni eh, li chiites yi di wax ni Aboubacar ak Omar dañoo war jël xilaafa gi te yonent bi alayhi salaam Sayyidina Ali li dénkaane woon jox ko xilaafa gi loolu moom yaakaar naa ku dégg lii ma wax danga xam ni da nga xam ni wérut kon amna benen hadith bu ñëw bo xamanteni dafa wax ni inni taarikum fiikum kitab allah wala bo kitab allah hablun mamdudun ma bayna samai wal ardi wa utrati wala wa utrati ahlu bayti wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida al hawd ma len di dénk ñaari khalifa sama ginnaw boobu mom khalifa la wax baatu khalifa waaye yërëm ndax xadis bi luy atteem ñaari xalifa sama ginaaw muy téere bi yàlla bi ak sama njaboot gi muy ahlu bayt yi muy ñoom ñaar duñ tàqalikoo ba keroog yowmal xiyaam di taxaw ba ñuy naan ca mbalkama xadis boobu al imam ahmad génne na ko ak at-Tabaraani waaye ku ne xam na ni al-Qasim ibnu Hassan mi ngi ci xadis bi al-Qasim ibnu Hassan من شي حديث بي الامام البخاري نينا ضعيف ويرت كو فيبل الحديث بوم نيك دنجكاي جام ابن القطان تمت واخنا لولو ابن القطان الامام يحيى بن القطان تمت لول لا واخ كون بو غيسه لي تخ لين شيعه ولا ني لاقطو الشيعه ني لاقطو تصوف بار جم شيعه ñuy dal ci kaw al imaamul Buxaari wala Yaxya al wala al imaam wala yu mel noonu yu mel nii rek moo ko waral ahadis yi lañu enrancé woon ñooñu taddaif ko ngir ni daa am ku ci nekk koo xam te ni kookaa tax ñu taddaif ko kookaa tax ñu ragal xadis bi bu ko defee ñu contrôle leen ci loolu al imaamu Zahabi nee daif waaye nañ dem ci eh, al imaam Hajar doonte nee na maqbul la waaye nee na keneen dafaa nekk ku ñuy wax ku ñuy wax Shurayk ibn Abdillah ci Shurayk ibn Abdillah xadis bu mu nekk man du ma ko wóolu ndax sayi ul xifz la mënu woon a mokkal dalaa jaawale dalaa jaawale ñu koy wax xadis nii la mu dem waxe ko nee da doon jaawale kon daal jàppal ni xadis bi yonente may sax wax ni maa ngi leen dénk sama njaboot xadis bu wér la mi ngi ci muslim waaye ndax dañ cay dégg ni xilaafa gi Seydina Ali ma ko moom ginnaaw yonente may sax déedéet duñ ko ci dégg mukk ndax saxaaba yépp dañoo jaayante ak Seydina Aboubacar ginnaaw yonente bi bi ma fihim al imam ali ba ci imam ali dafa ñëw jaayante ak Aboubacar dafa ñëw jaayante ak Aboubacar ci li gën a doonte am na ay uh, chiites yi di wax na jaayante wu te waaye am nañu ni sax ñaari yoon la jaayante ndax bim jaayante dafa nekkaatoon ginnaaw bi ak Sayyidatna Fatima di soxnaam te yonente bi moo ko mooy ba mu bëggee takk doomi abu jahlin yonent bi merce daal ne ko bul boole sama doom ak doomi abu jahlin dénk googu mu ko dénkoon tax bi Fatima feebaree Seydina Ali nekkoon ak moom ba taxoon lu bari rawoon ko ba mu ñëwaatee dégg gaa ñi di wax naan Seydina Ali jaayantewut mu jaayante jaayantewaat ak Abu Bakr jaayante gu bees kon yaakaar naa moom ci boppam kon jàppoon na ne Abu Bakr moo ko gën a yooyu ci xilaafa gi Seydina Ali radiyallahu taala anhum ajmain su ko defee ñu xam ni loolu moo am ci mbir mi niki noonu am na beneen riwaaya bu ñëwaat ci même xadis boobu ma la wax léegi la euh, Shurayk miñ ci ci Shurayk sayyul xabs la niki noonu tamit waxoon naa la ñi ci nekk ñëpp te nekkuñ ñu wér ibnul Qattaan qadaif leen ak al imaamul Buxaari niki noonu am na beneen bu ñëw inni taarikun fiikum ولا بوك يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي بابو رواية صح مم تاني رجل بجيك بواي بي سخفر دفا دفا ويرون مم نه زيد بن الحسن الأنماطي منتي تكون خمنا منكر الحديث لا وخم حديث درجة علم الحديث نحن نقول منكر الحديث لا آه، الإمام ابن حجر صح نينا ضعيف كفاية بالله كان الحديث حديثا kon jàppal ni xadiisu Saxalayni bii nii wenn yoon ci wér muy riwaayatu Zayd ibnu Arqam te Zayd ibnu Arqam riwaaya booba firil naa leen li firi leeral naa ko te mi ngi ci saxiihu muslim mi ngi ci saxiihu muslim bu bu loolu jàllee ñëwaat ci mbir yooyu ba tey waa léegi xadis bii ñu wax xadis bii nga xam te ni moom laa la wax léegi nii sa ñëw ci saxihu muslim ñëw na ci beneen riwaaya yonente bi wax ni waqad taraktu fiikum maa lan tadillu baadahu abadan inni ixtasamtu bihi inni ixtasamtu bihi kitaabullahi beneen riwaaya boo xam te ni ahlul bayt sax ñëw ci far entre tamit ñëw ci te booba kan moo ko solo xaaral ma wax la ay ma yi ko solo nga xam ne ñoom ci ahlul bayt lañ bokk far jaxfaru sadiq boo déggee tur yi xam ne ahlul bayt la bokk mu jële ko ci bàyyam muhammadul baaxir kooku moom kenn du sikk sàkk ni ci ahlul bayt la bokk mu jële ko ci jaabir ibn abdillah mu jële ko ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam kon waaw loolu leer na kon beneen xadis ñëw ne boo xam te ni yonente bi dafa wax ni jàpp leen ci téere bi yàlla bi rek yem ca te booba ahlul bayt rek ñoo ko soloo ndax wax naa sànq ni la janfaru saarix moo ko solo jële bi ci bàyyi abdu mouhamadul baqir mu jële ko ci jaabir ibn abdillah ala kulli xaal xadisu muslim bi moom wér na waaye wax naa la muy firi kon ku bëgg a indi ay iskalaat ci xadis bi tax nga bëgg dañoo wàññi aq sayidina ali ndax aqam mooy mu yoroon xilaafa gi ginnaaw yonente bi alayhi salaam kooko déggul xadis bi kooko déggul xadis bi te daa indi li yonente bi alayhi salaam wax ci abou bacrin te borom xam-xam wuute ci ndax moo tax ñu fal abou Aboubacar khilafa wala shura la wala tekkaayu abou ci khilafa gi déglul waxi abou Aboubacarin mo gënon na xam hadith bi yi nga xam mo ci ngeen ci daal yi mo tax mo wax naan irqabu muhammadan fi ahli baytihi bàyyi xel yonente bi alayhi salaam ci njabootam gi bàyyi xel di dénkaane moom ci boppam ni fonk ahlul bayti nabi alayhi na wax naan walladi nafsi bi yadihi la qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wallahi famille yonente bi salaam ak gi ak deretam moo ma gënal fuuf ma jokku leen moo ma gënal fuuf may jokk sama njaboot man te loola xam nga ni Seydina Omar wax na ko ndax nee na ko woon wallahi sama wala boobu Aboubacarin Aboubacar waxaan na ko fayam ndax keroog ba Abu Quhaafa ñëwee ànd ak jëm ci yonente bi alayhi salaam ngir tuub si bam mu tuubee ba pare yonente bi ni ko moo ngaa bàyyi ñu fekk ko ndax boroom bi jaaw dañ koy teral borom bi jaaw dañ koy teral ba paree abou bakrin dafa joy dan ni ko aka neexoon bis bi tay muy bis bo xamanteni sa baye bu bax ba da ca tubon muy muy abou Talib wala abdou Mutalib mun ko wallahi tuubug Abu khuhafa gi day tuubug sa mbok yi mo sa mbok ya mo ko gënal yonente alayhi salaam kon say mbok ma gënal fuf sa mbok ba ci Abu khuhafa sama baye mi motax lolu moy firnel firneel la yonente bi alayhi salaam waxoon ni laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa annaas ajmain kenn ci yéen du gëm mukk lu dama ko gënal ñëpp Omar daal ni ko ah yaa ma gënal ñëpp ba mu des sama bopp yonente bi ni ñëpp ba sa bopp mun ko kon yaa ñëpp ba ci sama bopp kon kon gi gënal gi ko gim gënal gi ngëneel gi nga xam ni saxaaba yi moom lañ moom lépp ni ki noonu njabootu yonente baa ngi saam ñoo gënal saxaaba yi lépp tamit ndax dañoo am ñaari daraja am nañ daraja yi nekk ay saxaabi ñi ci fekkee yonente bi alayhi salaam te gëmoon ko te faatu ci loolee am nañ daraja yi bokk ci njabootu yonente bi alayhi salaam daraja gën te rëy loolu daraja gën te rëy loolu waaye léegi sax buñ nee buñ nee xilaafa gi ginnaaw Abubakrin Ali moo ko ginnaaw yonente bi Ali moo ko gën a yeyoo ndax xadis bii buñ waxee loolu waaye Seydina Ali lu tax laajut xilaafa gi ginnaaw yonente bi alayhi salaam laaj xilaafa ginnaaw yonente bal dafa dem jaayante ak ki jaayanteeg Aboubacar jaayanteeg Omar keroog ba Aboubacar jàppee ci loxo Omar ni ko haati yadaka ubayyahaka indi seen loxo ma jaayanteeg yow ci la saxaaba yëpp àndandoo jaayanteeg moom waxoon naa ni Ali jaayante su ko defee kon nga xam ni chiites yi seen bopp seen pas-pas bi ñu am ci rëbbu Abu Bakrin ak Omar ak Ousmane ak saxaaba yu bari ci saxaaba yi la ko waral la ca ëpp nag sax dërul lislaam waaye mbirum askan la ndax boo seetloo ku mel ni Salmaanul Farisi dañ koo jël ni moo gën saxaaba yépp bal sax am na seen téere yoo xam boo ca demee dañuy dugal saxaaba yu baree bari sawara tànn ci ñenn rek ni ña nga aljanna boo koy Salmaan al-Farisi parce que Salmaan perse la woon donte ab saxaabi bu mag la bu mag a mag ñun moom comme li ma waxoon rek saxaaba yi ñu leen di màggal jamono bu nekk. ni ki noonu gis nga doomi Seydina Xuseyni moo leen gënal doomi Xasan pourtant Xasan am nay doom doo léegi Cheikh yi tudd doomi Xasan mukk doomi Xuseyni rek ngay dégg ñu tudd ko lu tax parce que doomi Xuseyni seen nijaay perse ab perse la seen nijaay Iran la dëkk. maanaam ci waa Perse yi la moo ko iranien yi ñoo bokk ñoo bokk aw aw xeet waaye doomi Asan nag moom seen yaay du ab Perse arab la loola moo tax ñoom si ni seeni wax awlaadul Xuseyn rek ngay dégg ñu ngi tudd waaye awlaadul moom doo dégg ñu ngi tudd mukk rek ngay dégg waaye doomi Asan moom doo leen dégg parce que ñoom duñ ay Perse niki noonu waxoon naa ko fi muy li xew ci Kisra nga xam ne Omar moo tas moo tas moo tas moo tas moo tas euh, empire euh, Kisra loolu boo xam tax ñuy gën a saaga Omar ak di ko xas euh, kon loolu lu lu mat a bàyyi xel ci mbir mi la niki noonu bi nga xamante ni Seydina Muawiya radiyallahu anhu jël na xilaafa gi ba doomi Seydina Ali wàcc muy Xasan jox ko xilaafa gi mu dëggal la Yonent bi alayhi salaam waxoon ni inna ibni hada sayyid wa sa yuslihu llahu bihi bayna fi'atayni bayna bayna fi'atayni yoo xam ne dañuy xeex sama doom ji ab sang la te yàlla dana yéwénal ci moom diggante ñaari kuréel yoo xam te ne dañuy xeex ci jullit yi waa léegi nan la yonent bi alayhi salaam di saxal ne ñaar ñi xeex ay jullit lañ yow nga ne kenn ki du jullit ñun si na li ñuy wax mooy ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañ waaye Muawiya dafa juum Seydina Ali moo jotal Muawiya benn tuyaaba lay am ndax daa ijtihaad juum waaye Seydina Ali ñaari tuyaaba lay am ndax moom matal na kon kay mbokk yi ñun yaakaar naa matal nañ ak Seydina Ali su ko defee kon Muawiya imma ngeen wax ni nit ku baax la woon loolu moom moom lañ ànd ak yéen moom la nangu te du ngeen ko wax yéen ngeen naan nit ku bon la woon fa ngeen koy jaaree mooy Yazid doomam ku bon moom ahlu sunna wal jamaa ñépp nee ku baax Yazid moom duñ ku baax waaye nag est-ce nekkam nit ku baax dana tax ñu koy saaga déedéet ku bon sax duñ la saaga ñun ku bon sax duñ la xas duñ la saaga waaye jëmmi Seydina Muawiya moom bu fekkoon du nit ku baax yonente bi alayhi du ko jël tànn ko ni ko deema bindal wax am maana li mbokk mi wax nii eh, alal di ko yonente bi alayhi joxoon ndax mu allafa qulubuhum la bokkoon ah loolu lu baax la yonente bi alayhi ku muy jox alal ndax mu allafa qulubuhum nga bokk kay kon daa tànn ba xam ne ku baax nga mu jox la ko ndax man ngaa indaale ñu bari ndax ñoom fañ fay bi ñu bokk dafa rëy moo tax fay bi ñu bokk moo rëy moo tax moo tax yonente bi doon jëflante ñoom noonu ngir maanaam xëy na seen lislaam gën a dëgër ak seen i mbokk mën a dugg ci tamit ama yenn wax yi ko xadis la ashbaha allah batnahu naa ci ñëw ci allah bu yàlla yàlla boo yàlla boo suurat yi mu leen di wax ba tax muy lekk lu bare bëri ba tax muy lekk lu bare bëri ala kulli xaal daal mbir mi boo koy xool da ngay xaw a gërëm sax ndax da ngay doo xam daal nit ñi luñ bëgg ndax yow saxaaba yépp nga ànd ne nit ñu baax lañ comme ni la bi digalee am ñu taxaw par force la déedéet diw ak diw mënuñoo baax diw lañ diw ak diw ci kanam ni ki noonu xadis bi nga xam te ni mbokk mi indi na ko tamit yaakaar naa mooy xadisu mooy xadiisu man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu képp koo xam maa nekkoon mawlaam aliyu mooy mawlaam li tax ma wax mawlaa firéeguma ko mooy ndax mawlaa mooy xilaafa wala déet naa ci ñëw insha allahu tabaraka wa taala waaw su ko defee kon xadis bi ñëwee ci ñaari nas am na boo xam dafa wax ni man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu xadis boobu xadis bu wér mi ngi ci alimam tirmisi solo na ko alimam ahmad solo na ko nekkut ci buxaari ak muslim waaye wér na ndax tirmisi wér na ci moom alimam ahmad wér na ci moom ahlu sun sunan yépp wéral nañ xadis boobu man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu niki noonu yeneen di waxoon ni ci xadiisi Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu bi yonente bi jógee ci ak gi jëmaan Madina bi mu demee bay dugg Madina dafa wax ne dafa taxaw di noppalu ab diir fala waxee ni amma baadu yaa ay ala yaa ayuha nnaas innama ana basharun yushiku an yatiya rasulu rabbi ab jaam képp la mbindeef la te dafa mel ni ndawul sama borom mi ngi ci man ngir ma wuyu ko waaye nag ni bàyyee naa ñaari mbir téere bi yàlla bi nga xam te ne ak jubañ ci ak wu leer na ngeen ko téye ak sama njaboot loolu xadis bu wër la waxoon naa sànq mi ci saxihu muslim ñu dolli ci léeg-léeg man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu ziyaada boobu it wax naa leen la ziyaada bu wér la ndax mi ci al imam tirmidi al imam eh, ahmad solo nañ ko ca boroom xam-xam yi sunna yëpp nee nañ bu wér la doonte am na ci ñoom ñoo xamante ne nii nanguwuñ ko waaye euh, mooy liñ nanguwul ci xadis mooy allahumma waali man waalaahu wa aadi man aadaahu yàlla yàll na nga dëgëral ku dëgëral sayidna ali yàll na nga noonoo ak ku noonoo ak sayidna ali waaye ziyaada boobu nag wax naa lañ la am na ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne nii ñoo xamante ne nii wéraluñ ko ku mel ni al xarbi waaye bu wéroon sax bu wéroon sax dinaa ko leeral li li xadis bi nekk am na ci beneen sax boo xam ne dafa wax ni wan wansur man nasarahu waxzul man xazalahu wa adir adiri alxaqa maahu xaysu daar riwaaya boobu moom moom riwaaya makzub makzuba ala nabi alayhi salatu wasalam léegi xadis bi nga xam te man kuntu mawlaahu fa aliyu mawlaahu nee nañ kon xilaafa yi ginnaaw yonente bi alayhi salaam kon Euh, ali yi moo ko waroon a jël parce que yonent bi nee na képp koo xam maa la yëlifoon xamal ni ali yi moo la yëlif koo xam maa la yëlifoon ni ali Seydina moo la yëlif waaw mbokk yi yonent bi alayhi salaam bi muy dëppee ci aju aj màkk ajam gu mujj nga xam moom la mos a aj ci màkk ba mu ajee ba pare ñëw bay dugg Madina doo ko wax wax ji xanaa kon day nëbbu fa ñëpp dajee moo nag fa waxe bu fekkoon dafa bëgg xilaafa gi Seydina Ali jël ko ginnaawam ca xajjatul widaa ca yow ma arafa muy def xutbaam ba ca dafay waxaale daan ni na ngeen xam ni yéen ñëpp na su ma fi jógee Ali moo may dond mu leer waaye ku ma yilifoon Ali la yilif te waxu ko Màkka dem bay dugg Madina da koo wax ak waa Madina kon lan moo tax spécialement yonent bi tànn waa Madina ngir wax ak ñoom ci loolu loolu laa a leeral lan moo tax spécialement yonent bi alayhi salaam tànn waa Madina leen loolu te waxewu ko Màkka fa mboolem ujaaj yëpp daje woon mboolem aalam islami bi waa Cham waa Misra ah waa Iraq waa Xijaaz jasiratul arab ñëpp daje Makka ca yow mu arafa taxaw arafa alxajju arafa yaa ngi wax fa la mu waroon a wax lépp ba aaya ba wàcc al yawma akmaltu lakum diinakum seen diine mat na tey xilaafa gi ci diine la bokk bu fekkoon xilaafa bu fekkoon yonente alayhi salaam dafa bëggoon سيدنا علي مو جيت خلافة جي جناهم كي فوفا لما يروح كي مقرن جاو أمي عند دفع من أمي مرجالون فوفا دير أبدا لا ده متن ومدن واحد يوم لولا لا بغنت لي من كنت مولاه فعلي المولى حمد الله لفه يوم مغني وري اندي الحديث نون جخمو حديث لن موي سبب الورود دا عمل ني وقت حديث سبب الورود لن موت حديث بي رط كم ني امي القرآن سبب النزول لن موت آية بي am na ahadis yu bari yoo xam te ni yonent bi sax bu ko waxee dafa am lu waral mu wax ko daa am lu xew ba tax mu wax ko bari na ay bari na ay misaal bari na ay misaal dinga nga xamante ni yonent bi sax mi ngi Madina jëm Màkka di aji dafa yónni woon Seydina Ali ni ko demal Yaman boo demee Yaman ñoom Muhaas ña fa nekk di xeex ak def la ñuy def bu ñuy séddale euh, xumus ba axmaas yi bi ñu koy séddalee yow nga séddalee leen ko ndax sag dégg fiq ak si dégg diine boo paree ci yaman nag maa ngi yow nañ daje màkk ci aj gi ndeysaan ku ko bëggoon la ku ko bëggoon la kon man maa ngi mii madina bi waaj pour dem màkk aji yow Seydina yi bala ngaa ñëw màkk jaaral yaman dégg naa kat am nañ jafe-jafe ci séddoo alal dañ fa gane ci geer bi yow séddale leen ko te xam nga Seydina Ali dana ko man ndax moom ci ul xurba la bokk ci ci mbokk yante bi deret la bokk nga xam ne ñoom dañoo amub cër sax ci ci séddale bi ci laay ñëw fii sax am na fi saxaaba yoo xam ne ñoo ci ak naa ñëw bi nga xamante nii Seydina Ali agré Yaman bi mu jëlee xanaa im yi maam li ngay ci guerre bi da koo seddale juróomi xaaj comme ni ko alquran waxe waalamu anna ma ganimtum min cheyin ba aaya ba jeex noonu la ko Seydina Ali séddalee jël arbaatu axmaas yi jox ko sordaal yi nga xam ne ñoo doon xeex ak ñi doon nekkoon ci biir armée bi benn xomus bi ci desoon maanaam arbaatu axmaas bi ñu ko waxee mooy quatre yi da ko xaaj juróomi cinquième quatre cinquième yi mu jox ko sordaal ci doon guerre comme ni ko alxuraan waxee cinquième mu cinquième bi ci desoon moom la yàllaa ko yonentee moom wala boog quatre cinquième quatre arbaatu axmaas yi moom la jox muy quatre cinquième moom la jox soldaar yi xeex mu soldaar yi benn xumus bi mu séddale ko mu séddale ko juróomi xumus benn xumus bi desoon mu séddale ko juróom jox benn bi yàllaa ko yonenteem jox benn bi ñege ñaale yeneen di ba ngi sax ndax yàlla moo ko jox jox beneen bi yetaamaa yi jox beneen masaakiin yi jox beneen ibnu sabil comme ni bi waxee ba jeex léegi nag boobu nga xam te ne sidna Ali moom moom la joxoon zawil qurba moom la joxoon njege ñaale yeneen di baa ngi salaam ba war a dem Makka da caa jël ca am na droit jël ci ñu jàpp ne sidna Ali amul droit jël ci xamuñ lan mooy ak sidna Ali ndax sidna dafa bokk ci njege ñaale yeneen di baa ngi salaam kon loola moom am na droit jël ci ndax am na ci cër am na ci ab cër bu rëy moom Seydina Ali ndax ulul qurbaa ci la bokk wala boog dawil qurbaa bi mu jëlee cërub dawil qurbaa te pourtant dawil qurbaa ñëpp mooy seenub sang huwa sayyidu dawil qurbaa mooy seenub sang bi mu jëlee cërub dawil qurbaa nag coow li mel ni ay ndax dafa dafa rëy téew daa bari am na gileem am ay fas am ay nag am ay jur gu gi am ay soxna kon cër bi Seydina Ali jël laa wax dafa rëy ndax am na ay gileem am ay xar am ay fas am ay nag am ay bëy ba ca ay berkelle amoon na ci am ay ay sabi ay jigéen ay soxna ay jaam am ay xale yoo xam ay jaam lañ am ay góor yoo xam ay jaam lañ ñu am kattan ñu am doole ñoo xam mën nga leen liggéey loo bi loolu amee Seydina Ali ci boppam jël ci kenn ci soxna yi def ko sabiyu muy soxnaam te loolu dagan na ci moom mu def ko wallahi ndax yéen bi isaan def na ko safiya istafaha li nafsihi safiya loolu la woon ci yéen bi isaan la woon si naal yi jël kenn ci soxna yi jëlee nag mu mel ni lenn ci saxaaba yi dañoo xawoon a fiir ci loola ndax si naal yi jël dafa ba sax am na ci ñoo xam ne ñoo dem ba ci yonent bi ay salaam wax ko ni ko yonent bi xaaral yëwali ali yi def mun leen lu mu def ñu ko def na lii ak lii ak lii yonente bi lànk bañ leen tontu ndax yonente bi xam na ne ali loolu mu def am ci àq Burayda ci boppam Burayda as-saxaabi yi jëlil ci boppam dem ci yonente bi alayhi salaam ni xanaa yëgoo li Seydina Ali def yonente bi ni ko lu mu def mu ko nangam ak nangam ak nangam su bi wax ñetti yoon la ko wax yonente bi doog koo tontu ni ko yaa Burayda atubghidu aliyan Burayda ku la bàyyi nga bañ Ali boo nee def ku la bañ bàyyi bañ a lii naam mu ko waaw fi ne de moom am na lu wax jàppal sama xol yéen tamit laa tafaal fa inna lahu min min dalika aw min dalika déedéet bul bañ àll yi ngir lim jël lim ci jël sax wallahi lim ci ama ko ëpp ma ko ah kon de génn naa ca duma ko bañ mukk ci àddina ma ànd ak Seydina Ali ci lam def maanaam Seydina Ali ca lam def loola nag bokk na ci li tax yonent bi alayhi salaam daan ni xanaa xamu leen nii képp ku ma nekkoon kilifaam Seydina Ali mooy kilifaam kon yónni gi ma yónni Seydina Ali foofu ci yéen ngir mu ñëw séddale leen xumus bi ñenn ci yéen di diingat xanaa xamu leen ni ni ma nekk seen kilifa noonu la Seydina Ali nekk seen kilifa mbokk yi tas texte bi nuñ ciy dégg ni xilaafa gi Seydina Ali moo ko moom ginnaaw yonent bi alayhi salaam kon boo jàngee xadis da ngay delluwaat ci sababu wurudil xadis lan moo tax xadis bi ñëwoon li tax xadis bi ñëwoon mbokk yi du caaga ne mooy ni yonente bi alayhi salaam dafa dem ba bëgg a indi leen ma bind naa naa ñëw ci waxi Omar gi nga xam te ni Cheikh Baye Niass waxoon na ko naa ci ñëw leeral ko incha allah ci waxtaan wi kon lii mooy li njëkk ci ni yonente bi alayhi salaam wax ni man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu daan ni ko anta min nii ka haaruna min Moussa wala ka manzili haaruna min Moussa yow ci man daal yaa ngi mel ni Seydina Haaruna ci Moussa yaa ngi mel ni Seydina Haaruna ci musa cër boobu nga am ci man wallahi am na am na sax bu ëpp booba ci moom moom moo toog bi xaar faatu ci lal bi yonente bi alayhi salatu wasalam keroog bi nga xam ne Quraysh ñu ngi wër yonente bëgg koo bi génn Seydina Ali ma faan ci ab lalam ñu war koo rey foofa cër boobu mbokk yi ku ko am lan nga soxlaati lan ngay xëccoori Seydina Ali musta xëccoo xilaafa waaye léegi xilaafa gi jeex na lépp jeex na yow ab julit nan ngay ñëw di ko xëcc wala xilaafa goo xam ne jeex na boo seetloo mbir mi day xaw a mel ni sax ñaari ndox yi romboon ak kër kenn ku nekk naan maa ko moom ba xuloo maa moom kër gi ñu xeex caa xeex ba ñu mujj lu ngeen ñu ni kër gi yàlla ñuy xuloo kii nee na moo ko moom taman maa ko moom waaye këri jàmbur gi ngeen di xuloo lu njëriñ li kon lan mooy njëriñ ci ñun kon ñu taxaw naan xilaafa gi Seydina Ali moo ko moom Seydina Muawiya moo ko moom diw moo ko moom Aboubacar moo ko moom amul njëriñ xilaaf boobu amul samara bokk na ci beneen ma ci indi Seydina Ali bi mu jëmee bi muy dem Yaman bi ko bi mu jógee Yaman jëm Màkka di fa fekk yonent bi daje daje moom ci aj gi bi muy daje moom ci aj gi daa am hadiyu ba mu yóbbaale woon hadi yim yóbbaale woon mu waxoon saxaaba yi ni leen ñi mu àndaloon leen ci Abu Saïd Xudri ci la bokkoon ni leen bu leen ko war bu leen ko war te bu leen ko jiitu te bu leen sol yére yi nga xam te ni ci xanaa yi la bokk maam xanaa yi yooyu nga xam te moom la jëlee woon yaman muy alal jëm fa jëlee woon yëpp ba muy dem daf leen nit bu leen ci bu leen ko war te bu leen sol yére yi ba ñu ci laal dara bàyyil ma ci yeneen bi alayhi salaam ndax man lii ma lii la soxna si ma ci jël sama cër la ndax ci dawil xurba laa bokk ci maay sayidu sabi dawil xurba waaye yénn buñ ci laal dara ci aguñ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam alayhi bi umi bam ñëwee ba ci yoon wi dab leen mu fekk ni ñenn ñi war nañ ci gileem yi bañ sonnee sol ci yére yi tamit mu mer lool mu mer lool moom Seydina Ali daañu leen waaye lan moo tax defu leen li may waxoon waxoon naa leen bu leen war gileem yi ngeen war ko waxoon naa bu leen sol yére yi ngeen sol ko mu mer ci seen kaw tàng ci seen kaw ñoom it ñu am ñëggu-ñëggu euh, xol ci noonu mu def jëflante ñoom ku mel ni Abu Saïd al Xudri mu metti ko lool bañ demee ci yonente bi ba fekk ko Màkka Abu Saïd nee na ñu boole si Ali ak yonente bi alayhi salaam li ko Ali nii def nii la def nii la def dañoo gëdd dañoo def nangam dañoo def nangam yonente bi alayhi salaam leen inni alimtu anna aliyan qad ahsana fala tubghidu aliyan li ngeen di wax lépp xam naa da ngeen di wax rek man maa gën xam ni ali musta ñaawal ak yéen waaye bàyyi leen ali bu leen ko bañ nee ñoom ñépp daal di noppi loola indi na problème bu rëy rëy kon bi yaayante bi ñëpp dëppee nag maam mbir mom dafa dafa nekkon lo xam dafa dafa dérangé woon Seydina Ali bi yent bi deppé nak ba djub Madina ànd ak Ali ak sahaba yu bari ñëw ba djub Madina comme wa Madina xeyna na ñoo xawoon am luñu jafa Seydina Ali yent bi ne man kuntu mawlahu fa ali mawlahu kep ko xam ma nekkon nekkoon kilifaam na xam bis na tay Ali na xam ne Ali mooy kilifaam la Ali def lépp ci yéen ca Yaman nam séddalee axmaasiya ak lam leen waxon ci ba ngeen dem Màkka ju Yaman ca alal ja meen bu ko war bu ngeen def nangam loola dafa mel ni maa ngeen ko wax ah mbokk yi dafa mel ni maa ngeen ko wax képp ku ma yilifoon ci yéen ci jamono jii ba ma yebalee Aliou yaman mu ànd ak yéen jëm jógee yaman jëm Makka war faa dajeeg man xam leen lu mu def man maa def lu mu def man day mel ni maa def mais bu fekkee ziyaada bi nga xam te ni man jàpp ma ni wér na wax naa la tax wérut même bu fekkoon wér na allahuma waali man waalaahu wa aali man aadaahu allahu yàlla ku ànd ak ali da nga ak moom ku noor ak moom da nga noor moom bu wéroon sax ci fii la wàcc mooy saxaaba yi nga xam ne ñoo amoon njëgi-njëgi xel ñoom abu saïd al xudri ci li nga xam ali def na ko ci biñ jógee yaman jëm màkka di la léegi ñu dem ci baatu wilaaya bi man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu ndax dañ ciy dégg ni al al wilaya mooy xilaafa wala al mooy xilaafa gi abadan xool yàlla wax fi fal yawma laa yuxazu minkum fidya wala min alladina kafaru mawaakum annaaru hiya mawlaakum wa bisa almasir <laughs> hiya mawlaakum man kuntu mawlaa fa mawlaakum fii ci aaya bi nu koy firee sawara da la yàlla di sawara mooy seen kilifa day mooy kon lan moo tax kon ngeen man kuntu kon ndegere xilaafa gi Aboubacar yow kon Seydina Ali ko moomoon kon déggoo nafs bi yow xamoo sababu wuróot bi xamoo luñ ci jublu yaa ngi koy tawil wala boo xam nga ko waaye bëgg a gërëmloo ab wala bëgg a gërëmloo euh, bëgg a euh, ay saxaaba moo tax moo tax kii kon mbokk mi lan laaj lan mooy problème chiites yi saxaaba yi lii rek mooy seen problème ak ndof rek xuloo ci loo xam fekke wuñ ko rek loolu donc mooy seen problème suñ si Ahmad Tidiane si mi ngi koy nettali nee na waa ji dafa euh, suñ mbokki law bay nee na romb am mbaam mu rafet kenn ku nekk naan sa morom euh, mbaam mi mbaam mi maa moom bañ xeex ca comme ñi romb na bi sànq rek ñu ma koy nettali bañ xeex ca bañ demee bañ leen di àtte nee na ñu laaj leen ni leen lu ngeen jëre ñu ni mbaam mbaam mañ romboon barab sàngam daal lañ doon werante kii maaxu moom te man mii maaxu moom ñu anam mbaam ma ñu ni dem na loolu mooy mbir mi li werante ci loo xam fekke woo ko xamoonam demee woon ay jaas yoo xam te ni yow sa jaas yi taxu ci ba pare nga bi caa taxoon sa làmmiñ loolu mooy pertement ñaari yoon mooy pertement ñaari yoon euh, su ko defee kon su ko defee fi ñuy ñëwaat mooy fi ñëwaat mooy ci euh, ci li nga xamante ne nii chiites yi dañ koy faral di wax tamit ci aaya wa anzir ashirataka al aqrabin te bi aaya bi wàccee yonente bi alayhi salaam wax ayukum yakunu axi wa wasiyi wa waarisi wa waziri wa xalifati fiikum baadi ba mu leen waxee loola Seydina Ali daal di dugg si bi mu dugg see daal di ko ana yaa rasulallah man mii yéen yéen daa wax kan mooy nekk sama mbokk nekk sama mbinkaan sama ginnaaw nekk ku may dondu nekk sama ministre ku may dimbali nekk sama xalifa sama ginnaaw nee Seydina Ali daal di. wax ni man mii yow yonente bi yonente bi aleyhi salaam daal ni yaa bani abdul mutalib hada axi wa waarisi wa wasi wa waziri wa xalifati fiikum baadi daal ni yéen waa kër abdul mutalib kii mooy sama mbokk mooy sama ndono mooy sama ndénkaan mooy sama ministre mooy sama xalifa sama sama sama ginnaaw ci yéen fiikum ci yéen nit ñi commencé reetaan daal ni abou talib waaye yow yow dañu dégg nga li li yonente bi wax ngóor si de la wax ni euh, mooy sa kilifa ba ci fay ba ñu am ci ay problème yu baree bari loolu ay riwaayaat la yu baree bari yoo xam ni nii Bihaarul Anwaar moo koy nettali gis naa ko fa ci page dix-huit ak page cent soixante-dix-huit ak page ay page yu bari yoo xam ne wax nañ ko fa loola moom téere sihan yi ci lay génn waaye wérut loola ci lay génn waaye wérut riwaaye boobu mbokk yi riwaaye boobu euh, euh, al antaaki ci chiyan yi bañ a gis nee na wérut waaye chiyan yépp astaghfirullah al antaaki ak chiyan yi indi ko waaye loolu lépp ànd ak loolu lépp nag dara wéru ca dañ cey sukkandiku naan waaw xilaafa gi kon Seydina Ali moo ko moom ginnaaw yonent bi alayhi salaam waaye dara ca wérut ndax euh, xadis boobu ñi ngi ko jële ci aswad ibnu amir mu jële fi shurayk mu jële fi al amash mu jële fi al minhal mu jële ci عباد ابن عبد الله الأسدي مجرد في سيدنا علي مرفوعا سبحان الله شيعي كان خمر لني دف حديث بلين كو تدلي ستدلي ساهتوري ثم بني دون قدل ناتي نيو niñ saaxee tur yi naa naa ko leeral sax benn yoon mu mu mu mat ndax al aswad ibnu amir mii al aswad buxaari ak muslim dañ koy génne xadis buxaari ak muslim dañ koy génne ak xadis waaye ñoom seen bopp ñu jël turam changé ko carrément ñoom chiites yi ndax boo seetloo ki nga ko jëlee lañ changé ndax Ubaad ibnu Abdillah al Asadi bokkut ak Ubaad ibnu Abdillah ibnu Zubayr bokkuñ maanaam ñaari tur yooyu ni nga ko jaawalee ngir bëgg rek maanaam layal layal seenu neen Ubaad ibnu Abdillah ibnu Zubayr ibnu al Awaam al Qurashi al Asdi kuñ xam la al Asdi lañ ci dool ñoom dañ al Asdi <laughs> te al moom du moom bokkut ak moom li mu tudd mooy Ubaad ibnu Abdillahi ibnu Zubair al Awaam Zubair ibnu al Awaam Abdillahi ibnu Zubair men moo jur Ubaad moomu moo jur Abaad moomu noonu ñoom ñu dool ca al asdi def ko aw santam déedéet du kooku de kooku daa wérul moo tax te kii wér ñu jël kii wér changé aw turam def ko kii wér te kii nga xam te mooy mooy sëtu Abdullah ibnu Zubayr di Abbad ibnu abdullah ibn zubair di doomi abdullah ibn zubair moom ci boppam solowul xadis bi ki ko solo mooy abbad ibnu abdillahi al asdi ad daif maa mi ngi mel ni tey ñu ni xaadim ibnu sëriñ mbàkke buso ci misaal xaadim nekk daif ñu jël meen xaadim moo xam te ni xaadim mu siqa la ku wér la ñoom ñaar ñëpp bokk tur bokk tur bàyyi xaadim ibnu sëriñ mbàkke buso waaye kii walla boo xaadim ibnu Sëriñ Mbàkke daal sant Buso ñu am beneen xaadim ibnu Sëriñ Mbàkke mu sant Ndaw naa jël Ndaw ndax ñooy samay kal ak Mbàkke léegi nag ñu ni xaadim ibnu Sëriñ Mbàkke Ndaw moom moom ñëpp xam nañ ni ab kaasib la xam nañ ne ab fenkat la xadis bu mu solo wérut mu solo xadis bii ñu dem sange ko daal ni xaadim ibnu Sëriñ Mbàkke Buso moo ko solo du Ndaw changé sant ya jàpp ni ñi duñ ko xam lii moo xew ci xadis bi ma la wax ca Abbaad ibnu Abdillah al Asadi moomu Buxaari nee na fiihi nazar al imaam al Buxaari fii nee na fiihi nazar nga déggaat kon nga déggaat kon lay xamal ni lay xamal ni bokk na ci li tax chiites yi bañ Abdullah bañ al imaamul Buxaari bañ giñ ko bañ lii ci la bokk ni mu mënee génne seeni seeni seeni secret تخم غي ني ني جان علم الجرح والتعديل ني جان علم الجرح والتعديل سن ني بخاري ننا فيه نفر دنج نان موي لي غنا غراو سي بخاري نومي جرحو نيت بخاري بو ني ديو دي ديو دي سما خيل دلو ابن كثير نت نكو نيل من اشد عبارات الجرح عند امام البخاري لير الالباني في الحثيث الباحث الحثيث ابن كثير نت نجي امام احمد يوم تي يوم تي فيه نسا واي مام دافا ضرب على حديثه دافا دور اي حديث مام ابن حزم الاندلسي نينا مجهول مجهول كوكو عباد ابن عبد الله الاسدي بوك عباد ابن عبد الله بن الزبير القرشي بوكو كون حديث بي wérut abadan même ci téere chiites yi boo ci demee sax dangay xam ne wérut ndax ñoom seen bopp d' nañ ni kooku daif la d' accord gi ñu d' ni euh, al asdi daif la moo tax gaaw changé ko def ko al qurashi <laughs> def ko al qurashi wala yaazu billah lii ci kàcc chiites yi la bokk ala kulli xaal كي خمتني موسى الحديث بي كان يضع الحديث وضع لون دلان فين اللي عندي بعيسى نعم واحد نعم تفكوه من أبو حاتم البستي أك الإمام النسائي نعم متروك أبو داود مو خمال مو نعم وأنا أشهد أن أبا مريم كذاب أبو داود نعم من ما نسيري فيالني أبو مريم ني فاجي دي الأسدي كذاب astaghfirullah ah, abdul abdul ghaffar ibn al qasim abu mariam kazab la al ansaari yi maa ngi seede ne ab kazab te moom mi ngi ci xadis boobu ci boo demee ci kutub chiites yi moom lañu indi ci xadis boobu te kazab la kon li ma la waxoon rek ahadis yooyu yëpp imam mu bañ a nekk lu wér mbaa ñu dolli ca mbaa ñu tawil ko mbaa ñu firee ko ni ñu ko firee nu mu ñu ko wër a firee wala boog ñu tawil ko ñu xam lu ko loo xam ne attuna ko moom xadis bi xadisul xawdi xadisul xawdi bi nga xam ni yonent bi alayhi salaam wax na ko te mbokk mi waxoon ni am na ji ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg naan ci mbànd mi ci ci ci baaji yonent bi salaam bi malaaka yi jël leen di leen dóor di leen dëpp yonent leen sama xeet lañ ñu ni ko xamoo luñ def sa ginnaaw loolu kay leer na ñooñu kay duñ ay saxaaba kon ndax saxaabi ni ñu koy taarifé mooy koo xam ne dafa gëm yonente bi alayhi salaam ànd ak moom gëm ko faatu ci loola ku faatu ci loola doo ab saxaabi imam mu nekk munafiquun yi nafiq yi wala muy ahlu ridda ñi nga xam ne ñoo génnoon ci lislaam ginnaaw am na am na ñoo xam ne ñoo génn ci lislaam ginnaaw yonente bi moo tax Aboubacar doon xeex ak ñoom ñu tuddee ko ridda geeru geeru ñi nga xam te ne dañoo génn ci lislaam mooy ñu bañoon joxe asaka ak ñee ñi nga xam ne ñoo génn ci lislaam wetti waat ginnaaw yonente bi alayhi salaam alladina ñu weddi kon kon mbokk yi bañ ko waxee ne ko innaka laa tadri ma ahdasu ba'dak xamoo li sës sa ginnaaw xadis am na riwaayaat yu bëree bëree bëri mais yonent bi sax ginnaaw bi dafa wax ne soxqan ñeel na leen toroxtaange ñeel na leen ndax ñu ay saxaaba yi wallahi du ñu ay saxaaba kon mbokk mi li mu wax ni saxaaba yi nga xam te ne ñoo bëggoon naa njëloo leen ginnaaw loolu lu mas a tuub la abadan du ñu ay saxaaba li isa hawa mukk ci àdduna loolu naafiq إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا أنت بصح أم نزافيقي وخمسين خمي ولا الون يلا ركموا وين خمون نيم خمون دخو حذيفة اليمن موي موي موي ليست بقى te Omar da ñëw diko ko wër suba ngoon naan ko teg maa xool ba xam ci la bokkam déet xam ngeen ni mos Omar sori nako muy nek nafiq ala kulli hal wa mimman xawlakum min al arabi munafiquna wa min ahli al madinati maradu ala nifaqi laa taalamuhum nahnu naalamuhum sanuazibuhum marratayn laa taalamuhum nahnu naalamuhum li tax ma nettali aaya bi moy dina deg ko xam dana dana wax ni yoyante bi xamul na suri naafiq yëpp déedéet xamuloon ñep ndax yàlla nek la ta'lamuhum xamul len nahnu na'lamuhum ñun ñoy len xam man yàlla moy len xam wa mimman hawaykum xawlakum min al-a'raabi am ñoy wër ci nifi kaw kaw yi ak ñi nga xam te ñoo ànd ak yoyante ay salam ay munafiqun wa min ahli al-madina am na sax ci wa madina yo xam maradu ala an-nifaqi dañu sax sax ci ak naafiq dëgër ci laa ta'lamuhum nahnu na'lamuhum xamoo leen sax man maa leen xam man yàlla loolu lañ cey déggee mooy yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamul naafiq yëpp kon daa jàppoon ni ñooñu naan ci ay saxaaba yi lañ bokk nekkete yoo ñoom ay naafiq lañ woon dañoo nëbbu ak dañoo nëbbu ak naafiq ak kéefar feeñal ak njulit te fekk dëgg ci ñoom kon naafiq lay doon wala mu nekk ñi nga xam te ni dañoo irtidaar woon ginnaaw bi yonent bi alayhi salaam faatoo ndax ah, am na ñoo xam ne dañoo irtidaar génn ci lislaam ba kër doon xeex ak ñoom ànd ak saxaaba yi comme ni ma waxee woon sànq moo tax yaayante bi mu xamee ni bokkuñu woon ci aw xeetam daf leen rëbb jéemu leen jéemu leen ràmm daf leen rëbb kon ñooñu duñu ay saxaaba kon kay ku bëgg a wax ne ñooñu ay saxaaba lañ dangaa dangaa wax loo xamut bëgg a tuumaal saxaaba yi waaye ñooñu duñu ay saxaaba saxaaba yi mooy koo xam te nii dafa gëm buñ nee dafa gëm rek kon naa feex génn ci ku génn ci lislaam génn ci gëm yonente bi gis ko gis ko mooy dëkk ak moom wala donte gumbale waaye xam na ni xam na yonent bi alayhi salaam ba pare faatu ca loolee kon bu ca faatuwut kon wax dëgg yàlla bu faatu ci ëngëm kay kon du saxaabi ok kon du saxaabi léegi nga noppalu kon problème amatul kon euh, kon daal jàppal ni saxaaba yi yonent bi alayhi salaam mënuñoo dugg ci mbir mi. man laqiya nabia sallallahu alayhi wa sallam muminan bihi wa maata ala dalik ku dajee yonente bi alayhi salaam gëm ko te faatu ci gëm googee ki ci faatuwut kon lu tax nga bëgg ko limaay saxaaba yi bokku ci bokku ci kon naafeq yi gëm mosuñoo gëm yonente bi alayhi salaam ñi génnaat ci lislaam ñoom faatuwuñ ci lislaam dañoo génnaat ci lislaam kon kay ñooñu ñàkkan seenu ñàkk naan ci ci mbalka mi kay loolu lu war la sax lu war la yonent bi alayhi salaam dafa jàppoon ay jullit lañ ndax bu fekkee jàpp nga ni ñii ay saxaaba lañ kon kay mën nga cee dugal Abu Jahl wala Abu Lahab wala Umayya ibn Xalaf ndax ñii ay yéefar lañu déewuñ ci lislaam tiin yi am naa feq la kon kay wax dëgg yàlla kon problème problème day gën a yaatu su ko defee kon am na beneen beneen mbir boo xam te indiwaat na problème te mbokk mi juñ na ko ci juñ na ko juñ na ci ay waxam muy Seydina Fatima dafa ñëw ci Aboubacar radiyallahu anhu ni ko jox ma sama miraasu baay jox ma sama miraasu baay Aboubacar ni ko yonente kenn du ko miraas Fatima merci loola. xam nga loolu sax bokk nañu problème yi tax chiites yi di euh, parce que Aboubacar mooy baayam Aboubacar mooy baayam te Seydina Aïcha bi nga xamante ni tuumaal nañ ko xadisul ifk Seydina Ali. am na wax ju mu waxoon yonent bi ci moom ni ko yàlla yaatal na say mbir bu fekkee moo bu fekkee moo njaaloo demal di mu di keneen wax jooju des na ci njabootu Sayyidatuna dañ xaw koy jàpp ni ki noonu tamit Fatima di soxna Seydina Ali di bàyyi yaay bi mu laajee ndonol ndonoom ci Aboubacar Aboubacar delloo xaw naa indi ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu ñun lu ci suñu yoon kër goo moomut loo ci xuloo waxoon naa sànq suñu yoon nekku ci nañ leen jéggulul yàlla lañ juum ñaan yàlla tas ñu seen barke moo ñu jàllale waaye du nekk fii di leen xasaka saaga bi yonent bi alayhi salaam bi fi bàyyi ko Fatima ñëw ci ko loolu Aboubacar bi nee na nahnu l anbiyaau laa nuurasu maa taraknaa foofu wa sadaqa dañ ñu doon luñ fi bàyyi ab sarax la waaye dangaa bëgg léegi yonente bi alayhi salaam Abubakar def li Fatima wax bàyyi li yonente bi wax Fatima ni ko jox ma sama noonal ci sama bàyyi ah bi ni ñun duñ ñu dondu kon loo ci bëgg bu defee li Fatima wax de bàyyi li yonente bi wax alayhi salaatu wasalaam Fatima xëy na xadis bi jotu ko woon rek xëy na moom dafa jàppoon wa warisa Suleymaan Daawuda rek yaris ni wa yaris min ali yaquba da jàppoon ne xëy na ab yonente ma Iisaa ma dondu waaye imma nga wax ni lële ay yonente la woon yoo bokkuñu yoon si yonente Iisaa wa sharu man qablanaa sharun lanaa maa lam yuxaalif sharaana ci wax ci arab rek xamal ni am na ñoo xam ñoo ko moom ñoo ko gën a ñoo ko gën a waaye li ci wax ci olof doy sëkk ngir ñi nga xam te ni dégguñu arab araab yi moom aajowoowu leen ko yéen yenn yenn mbokk yi su ko defee yàlla dafa wax ne Suleymaan doon na Daawud est-ce dañ cey dégg ni kon yonente bi alayhi salaam Fatima dafa bu fekkee ndono lool ndono ndonol alal la ak ndono askan su fekkee loolu la kon jàppal ni amul ci suñ diine ñun ndax yonente bi alayhi salaam nee kenn doon waaye du loolu safar ndono la ndono lu bu wala moo tax mu ñaan ko Zakariya ñaan ko yarisuni wa yarisu min aali yaquba yonente yi doon ñaan am ndono seen ginnaaw mooy ndonal nubu wax bañ nubu wa gi dañ ci seenu askan yonente gi dañ doon bañ ba dañ ci seenu askan ñu ñaan yàlla am ku leen donn ci seenu yonente nekk yonente bu fi jógee yàlla may leen ko moo tax eh, Zakariya am Yaxya Souleymane am wala Souleymane Daouda Daouda jur Souleymane mu nekk yonent ginnaawam Yaquba ay doomam nekk yonent ñoom Yusuf alayhimu salaam kon ndono gi loolu la waaye du ndonal du ndonal alal moo tax comme yonent bi ay moo fi mujj nag moom kenn mënu koo doon ci nubuwa doomam mënut a nekk du yonent bañ ne ko ba doom jigéen la fi bàyyi te six ginnaawam la faatu radiyallahu anha loolu lépp xekma la bu yàlla def ngir wane ni yonente bi alayhi salaam annabiyu awlaa bil min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yonente bi moom julit yëpp ko bokk du yonente bi askan du yonente bi askan du yonente dëkk du yonente bi kër waaye yonente bi boo xamante wa ma arsalnaka illa kaafatan linnaas ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ñëpp la fi ñëwal yonente bi alayhi salaatu ala kulli xaal loolu moom yaakaar naa kenn mënu cee sukkandiku ndax yonente bu leer nañu boo xam ne xadis boo xam ne bu wér la waaye léegi bu fekkoon dañuy dañuy doon doon yonente bi ndax Fatima rek moo ko a doon yonente bi bàyyiwul Fatima rek bi bàyyi na ay soxna soxna yi dañoo war a doon kon su boobaa boobaa tamit euh, soxna yi dañu am sumun xanaa Abbas tamit ginnaaw moom mi mi fi woon xanaa dina doon nag tax siiban su boobaa kon Fatima moom. faraxun waaris la moom xaaj alal ji lay am <laughs> xaaj alal yonent bi alayhi salaam moom la Fatima am kon boobaa su ko defee kon soxna yonent bi ñu fi desoon ñu bokk sumun bi ndax Fatima tax li mu jël faraxun waaris ñu bokk sumun bi al abbas jël li des ci alal ji lépp waaye léegi lan moo tax soxna yonent bi laajuñ seen ndono lan moo tax abbas bokk ci ahlul bayti a doon yonent bi dondu te moom buñ ko woon doon tax siiban lay dondu maanaam lépp lu des ci alal ji moo koy moom kon moo ci ëpp kon lu tax laaju ko parce que nas bii texte bii nii agsi woon na ci moom texte bii yonente bi wax ni ñun yonente yi kenn dañu doon abbas jàngoon na ko soxna yonente bi jàngoon nañ ko waaye dafa agsi wut woon ci Fatima imma agsi wut woon ci moom wala boog agsi woon na ci moom waaye sentiment yi ko jàppoon yàlla ko yàlla gërëm ñu dem ci ñu dem ci ba mujj bi nga xam te ni Cheikh Baye indi woon na ay waxam muy ni yonente bi salaam bi mu demee dafa wax ne indil leen ma aw kayit ma bind indil leen ma aw kayit ma bind boobu nag indi na problème bu rëy moo tax ma bëgg ko leeral moo tax ma bëgg koo leeral moom la ñu wax xadis xadisu raziya <laughs> xadis boobu ibnu abbas solo na ko mu ni yonente bi salaam bi mu demee ba war a ba war fee bàyyi ko gaa yi bari ñu ngi toogoon ci wër ko omar miñ ca woon yonent bi alayhi salaam jékki-jékki daan indil leen ma ab téré wala indil leen ma aw kayit ma bindal leen lo xamanteni te indil leen ma kayit ma bindal leen ci ab téré bo xamanteni du ngeen réer mukk sama ginaaw Omar daan ni inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad galaba alayhi alwaja wa indakum alquranu xasbuna kitabullah ndeysaan Omar daan ni yonent bi alayhi salaam day méttit bi méttit bi moo jàpp rek métit wee ko jàpp lool te alxuraan nag fi te alxuraan doy nañu sëkk bi mu waxee loolu gaa yi fa nekkoon commencé xuloo ahlul bayt am ñu ni déedéet nañ ko indil mu bind am ñu ni déedéet li Omar wax dëgg la ba coow li bari yonent bi daan xuumoo xuumoo jóg leen xadis boobu mi ngi ci Buxaari ak ci Muslim xadis bu wér-wér la xadis bii Baay wax xadis bu wér-wér la waaye nag nam ko nettalee moo bokk te nam amee <laughs> nam ko nettalee moo bokk nam amee Seydina Omar waxut luut yonente bi de métti bi moo ko jàpp waaye waxut mukk ni yonente bi dafa màndi yonente bi nuróoliwul yonente bi mukk ak ku màndi wallahi azim xaacaahu def yooyu mukk ci àddina baat boobu saxut ci hadis bi am na téere bu ñëw bu tudd fasalu ahla zikri ci page cent quarante quatre ak page cent soixante dix neuf mu wax ni Buxaari moo ko solo waaye loolu ay kàcc la amut boo xooloon Buxaari minal alifi ilal yaa doo ci fekk baat boobu baat boobu Cheikh Baye wax ni yonente bi alayhi dafa dafa mel ni commande wallahi am doo ko fekk ci Buxaari ci moom li génne xadis doo ko fekk ci moom muy baatu yahjuru muy baatu yahjuru doo ko fekk mukk mukk mukk mukk mukk ci Buxaari xanaa kay man nga koo fekk man nga koo fekk ca Buxaari qad ghalaba qad ghalaba alayhi al-wajaa yonente bi alayhi salaam méttit bi moo ko jàpp te loolu koy wax dëgg yàlla pourtant ñàkk a dégg la rek waaye loolu Seydina Omar dafa tag dafa dafa tag dafa dafa wéy yonente bi foofu rek comme ne Seydina yi defoon mbokk maa ngi naan sax li ma li ma nuróole bokkul ndax bi yonente bi saa waxee ni naa ci ñëw na yonente na Seydina Ali yërëme woon yonente bi ba mu ne ko effaceel tur wi bëgguñ ko cee gis lii moo tax ñu wuteeg man Seydina Ali ni ko du yàlla du ma effacé rasulullah laa gëm wax naa ni du ak ñàkk kersa mosuma wax ne ak ñàkk kersa la maa wax ni loolu ak wegeel la ci yonente bi sallallahu alayhi waaye Seydina Omar lii mu def tamit ak wégeel la ci yonent bi alayhi salaam ndax coow li bari na wax ji bari ñëpp commencé wax mu ni xad wala xad xalaba alayhi alwaja yonent bi dafa sonn may leen ko mu noppalu yonent bi dafa sonn may leen ko mu nopp jubluwu ci li muy wax wax yi dof la waaye li muy wax waxi ko mante la déedéet lañ ci jublu mooy yonent bi alayhi salaam sonn na may sonn na la preuve mooy Buxaari mi mbàyyi wax ni maam xadis bi Yahjur ñëw na ci Yahjur ñëw ci Buxaari qad galaba alayhi al-wajh moo ñëw ci Buxaari yéen tamit sax métit bi sonal na ko métit bi sonal ko li ñu ciy mooy may leen ko kon mu noppalu mbokk yi dañ bàyyi tawil ak di wax loo xam te ni maa anzalallahu bihi min sultaan yàlla wàccewu ko mukk amu ci aw kon kon firnde ji mooy euh, firnde ji mooy allahumma salli ala sayyidina Muhammad moo tax Abdullah ibn Mas'ud bi tëddee ci lalu faatu sonn lool mu gis muy ñaq-ñaq wu metti dane ko yow bi la dal ni metti na de mu ko waaw ndaxte day man sama mettit wii mi ngi mel ni ñaari mettit ci mettitu ñaari nit ci yéen moom la yàlla teg waaw mettitu ñaari nit loxo yàlla maanaam bu boppam ñaari nit doon metti na muy méttee bopp yonent bi alayhi benn méttu boppam tam boppam day mel ni méttu ñaari nit ngir maanaam euh, yàlla yàlla moo koy teg ngir yokk ay darajaam rek alayhi bi abi mi afdalu salaatu wa tamu mbokk yi loolu ku ne xam ne lu diis la lu tiis la kon tey di fi coow ak di fi wax ak di fi werante ci jamono jii nii mën naa ñàkk dañ ko may mu noppalu loolu Seydina Omar bëgg a wax rek waaye wallaahi bëggut a wax mukk ni lii lii ñu wax bëggut wax mukk lii ñu wax bëggut wax mukk lii mbokk yi wax euh, euh, xadis boobu qad galaba alayhi alwaja min ci buxaari kitaabul marda baabu wadaci alyadi ala almarid ci buntub teg loxo ci kaw ku feebar numéro cinq mille six cent soixante wala numéro 5667 ñaar yëpp ñaari hadith yëpp rot na foofu nga xam ni kon ku bëgg a xam hadith bii ndax li ma wax moo wér wala li bàyyi wax moo wér la ñëw ci Bukhari demal nga xool numéro hadith bi ma la wax sahihul Bukhari kitaabul marda baabu wadan yadi al maridi 5660 qad ghalaba alayhi al wajh mo fa ñëw waaye yahjur wallahi ñëw fa bàyyi du ko indi ma ko baat nay tukki abadan ñawufa su ko defee mbokk yi kon loolu lu mat a bàyyi xel la ñu xam ni xadis dafa nekk bi lu sew loo xam te ni ku ko xamul mën nañ la cay nax mën nañ la cay dugal ci foo xam te ni xëy na mën naa indi problème waaye lii moo xewoon bisub alxames ba amma li Omar wax ni xasbuna kitabullah téere bi yàlla doy nañu lan ci jublu mooy al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diinan l'islam mat na sëkk waaye léegi mbokk yi bu fekkoon sax yonente bi alayhi salaam yàlla wax ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax wax yu la yonente bi bu demoon sax ba xelam nekkatu fi sax su waxee wax yu lay doon ndax Omar xel nangu na ci moom mu gëm ni yonente bi alayhi salaam dana wax loo xam te ne nii am xelam àndu ci wala dana wax loo xam te ni xelam dem na abadan Seydina Omar wees na foofu fu muy gëmee loolu man xaadim bu sa mii nga xam te ni sama pas-pas dëgërul rek wees naa fu may gëmee ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax loo xam te eh, am xelam nekku ci abadan waaye léegi bu fekkoon loola am na sax bu ko waxee waxi lay te bu ko waxut kon ndax ñàkk waxu yonente bi loola ngir Seydina Omar moo wax ni bu leen indi téere bi bay indi ba mu bind waaye léegi loola est-ce que yàlla moom bu dee lu war a lu war a mottali diine ji la bu dee lu war a li diine ji la est-ce que yàlla dana bàyyi accepté loolu te diine ji war a mat te yàlla dig ñu dig ñu diine ma diine dama koy matal xel nangu ko yonente bi noppi ci ñàkk wax lu bokk ci diine ngir ragal Seydina Omar wala ngir am xelam mu dem <laughs> loolu xel nangu ko léegi sax nag ci gàttal mooy ñoom li ñu gis Seydina Omar moo leen fardal ndax li tax mu far leen dal mooy nee na yonente bi mujjut bind tuumaal nañu yonente bi kon nëbbu na tuumaal nañ ko kon dafa ragal Sidina Omar tuumaal nañu yonente bi am am xel mu dem xel mu dem bi ñuy waxee Omar ko tuumaal kon kon ñoo ko tuumaal parce nangoon yonente bi waroon naa bind te bindul rek kon am xelam daa dem imma am xelam daa dem wala dafa ragal Sidina Omar wala dafa nëbbu yi ñett yooyu yëpp benn mënu cee nekk ñett yooyu yëpp benn mënu cee nekk ñett yooyu yëpp benn mënu cee nekk kon li am mooy kon coow li daa bari cool daa bari yonent bi salaam daan leen dem leen sax léegi far parce que la tax mën leen dem leen xam na ne li mu waroon a bind dana lijjantiku yàlla mën na ko waxee ni ko li ñu waroon a bind dana lijjantiku moo tax lenn ji borom xam-xam dañoo wax ne xilaafa Abubakar sax la waroon a bind far <laughs> wax ji jeex te loola du du du du lu ma wax nii rek bàyyi du lu ma wax rek bàyyi Eh, su ko defee kon mbokk yi eh, xilaafa googu am na ñu ne xilaafa Abu Bakrin la parce que moom lañ xamoon ci yonent bi mu li muy feebar lépp li muy feebar lépp Abu Bakr la woon wax naan na jiite bu amee ay nit yu xuloo mu ni wa fiikum Abu Bakrin Abu Bakr mi ci seen biir am na bis boo xam sax da ko wax na jiite Abu Bakrin di jiite yonent bi dindi bi dindi rido bi di xool abubakar bëgg dagg julli gi mu ko déedéet àggaleel julli gi àggaleel julli gi moo tax lenn ci borom xam wax ni maam xilaafa abubakar nas la nas la ndax lii ma wax léegi ni taqriru nabi alayhi salaam ak nas la ak tamit li yéen alayhi salaam waxoon ni iqtadoo bi ladayni min baadi abou bakrin wa omar roy leen ci ñaar ñi ñëw sama ginnaaw muy abou abubakar ak omar mbokk yi lii leer na nañ ñi nañ ñi nañ nañ nañ fama fama za ba'da al haqq illa dalal nag fama za ba'da al haqq illa dalal ginnaaw dëgg moom erreur rek am la ngeen amut yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp lu ci amaat subha bu moo waxee bu soobee suñu borom naa ñëwaat leeral ko su ma yaay silsila bu mujj bi dinaa leeral xadisu Ammar bi nga xam te mbokkum ji ñu ko yéen daal sax wax ni euh, Ammar da yërëm naa ko alfiatul baax yi ñoo koy rey incha allah wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah